Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul huqdatan min lisani yaqahul qawli subhanaka la hilma lana illa ma'lam tama Mbokwe entronot inga hamna nungi top si watu Sen bokwe haji modu si se mara si se Mwoy am yene yuwet li kontak yene Kom ni mulan kowa khewon Bandeng limbo yalla dinandi di yene di wétali ko tey ak yéen si Wadduha TV lu ñaan bokk yépp rek macha allah nuy abonné si mbaaxu borom bi ndax yeneen a ngi ñëw si kanam di nuyoo tey siyaara tey ñaanal way jiitu yi macha allah way jiitu yi yàlla di beesal seen yërmande yàlla di beesal seen jéggal di siyaara suñuy kilifay diine di ñaan yàlla guddal seen fan lool lool lool wante yàlla di yokk wéral seeni cër ku si nekk rek lay sa yitte te mu doon lu diine ngor gërëm nuy ñaan yàlla berte lay xéewal ba lool mana a mat nuy ñaan yàlla it fa tabarakallah mu gën a tàppe xol yi nuy gën a bëggante di gën a soppante di gën a yéenante jàmm defe naa fan yi macha allah Sénégal xel yépp mu ngi ci Coupe d'Afrique des Nations muy loo xam ne sax ñaari at lay am te ñaari at yooyu muy am du diire lu ëpp weer wante mbégte kontante gi nga xam ne moom lañu sëy ut ba nga xam ne koy sénégalais rek ma ngay ñaan ngir ñanu fa teewal di suñuy ambassadeur yàlla yëkkati leen fa yàlla may leen ndam fa tabarakallah yal na yàlla jaarale si loolu ak yéene boobu it macha allah muy doon loo xam ne day sax ba faw te muy réew moo xam ne dañuy bëggante réew moo xam ne dañuy yéenante jàmm doon réew moo xam ne bii nit ku si nekk rek sa morom ngay mooy doon sa seetu mooy ko xool rek danga say gis sa bopp nan ko yàgg di waxee rek nit ku si nekk. la nga yéene nit ñi ren noonu la la yàllay def déwén si mooy noo bëgg mel déwén danga ko yéene nit ñi ren kon nan gën a fóot xoli yi ne ko sunu maam sunu bàyyi ba yal na yàlla fayal nu ko yàlla yokk leeran te tas nu si barkem daan ko wax Mawlana Alxaji Abdou Aziz Sy Dabakh si nanu tàppe xol yi Sénégal bu nu tàppee xol yéenente jàmm lépp fépp fu nu bëgg àgg rek fa tabaraka la dinañ fàgg lu yàlla dogal si nit ñu nangu ko tey ñaan yàlla dinaa di wax ne ñépp mënunoo nekk premier kon ku yàlla def mu jiitu fa tabaraka ko fa fa ko yàlla teg te nga ñaan yàlla fa nga toll macha allah yàlla defal la fa ndëgër laay ndax li ni wax koo gis rek am na ku bëgg a mel ni moom mooy tax nan di yokk di na cant gi di yokk jàmbat yi di wàññiku xéewal yi di yokk fa tabaraka la ñuy gën nangu dogalu yàlla tey gën di jox yàlla la mu it yàgg naa di ko wax ne fa tabaraka la lu ñëw si xéewal mu fab lépp jox ko mawlana jalla jalaluhu fa tabarakallah lu mu wàccee si ay nat nu sant ko te ñaan mu teggil na ko ndax yàllaay boroom jamono te yàlla rek rek rek ma mën a soppi jamono fa xam na nii leen yéene di koy def ak yéen si kàttanu yàlla si di wettali konte ak yéen si Wadduha TV ñu leen ñaan gen yokk di abonné wax ji lu si jub nu sante ko yàlla jala jalaaluhu lu si safaanu nu ngi koy jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin